bikum jafal taxal ay pëno takk ay morso yu xonq taxaw ci kaw tali bi baare tali taxaw ca kanam oto ya na leen xalaa ma ndir bàjjo xalaa xalaa du ngeen fi jaar lii la askanu bambilor def ngir wane seen naqar ci caxat-caxate ak daggate gi njiitiri Macky Sall daggate seen commune ba vox populi moo ñu ko xamal yéene kaay bi ne démb bambilor saxaar na tàkk na jëppét njaañ jóob nag yàkk na Omar Gueye kàddu yoo xam ne wañ wu ci dal dee neneen lu bambiloor daal fa ñoo mer fa ñoo xam lu leen métti ñu wane ko yow seetal rëdd gu bees gi ñu rëddaat kart ndakaaru fa xam ay dëkk yoo xam ne ca bambiloor lañu bokkoon léegi nag fañ leen a boole ca sàngal kaam ñu ne loolu nag du ci dal le quotidien yéen a kaay ne bambiloor fa ñoo fippu fa ñoo jàpp na ñoom daal ñoo ñi gën a ñàkk ñi gën a loru ci ndagate gu bees gi conseil municipal ba fa ñoo dàq projet bi ni mel maire ba nag lam xam ne mooy ne Oumar Gueye moo leen bëgg a néewal ndax sàngal kaam ci boppam moom lañ waroon a taf taqal boole ko Bambilor critique yéen a kaay mais fi mu ngi bëgg a critique de ndax Bambilor xeex ñàkkante seen juróomi dëkk yi ñu yóbbu sàngal kaam lañ bëgg ñu delloo leen ko info yéen a kaay na Bambilor wa seen mer fañ ko ca mbedd ba pare joxoñ baaraamu tuuma Umar Gueye ba tey info yéen kaay na loolu yëpp nag maanaam dogate gu bees bi ñu dogate Ndakaaru jël Kër Massar def ko département jël ay dëkk jëlee ko diwaan bi yóbbu ko ci beneen diwaan du dara lu may hay calcul politique boo xam ne état bi moo ko def du dara mbiru politique rek la Aliou Sow bi fi nekkoon ministre ci jamonoy Ablaye Wade na leen wax ngeen deug de gis ngeen li du dara lu may ay règlement de compte fayanto ci walu politique bëgg tek ay daan lenn ci ay politiciens li rek la de may leer li leer lii yéen a kaay mooy ne askanu tëngéej fa ñoo défié dékku makki ndaw ña fa ñoo tojate lepp seen kanam wal fajr yene kay na toxal gi ñu toxal wote maire yi ak ndogot ndogatee gu bes gi ñu def carte ndakaaru moy nganda yu njiitëram makki Sall mom la de waye ndaw yi lor ya wan nañ ko nako li nga bëgg du fi amé de yow makki fa ñoo fas ñakante yow bu lay leer rek nay sa jamm Abdoulaye Diouf sar nak jëwriñ ji denk walu wér yaram su bëggee am jàmm xeex attaqué topp nga muy topp Abdou Sarr mi fi jiite woon hôpital Linguère bële c'est ba mu teg ko ca suuf de hee syndicat kër docteur bi ñuy wax SAMES fa ñoo kaata ñoppati Diouf Sarr yaw seetal geraw ñaari fan lañ fas yéene amal fukk ak fukk ak benn ci weeru mai bii docteur yooyu duñ liggéey te ña ngay woo seen yeneen moromu syndicat docteur yi ñu ànd ak ñoom ci geraw bi ndax waruñoo seetaan ñuy néewal doole seen naataango di ko yóbbu ci yoon ak yu kenn xamut info yéene kaay ko xamal le mandat yéene kaay na ko gis nga hôpital Linguère fa xamoon boo moytuut beneen musiba naaru laay moo fa nar a xam baax na rek direct news mel ni kuraan Diouf Sarr sax moom fa ko doy sëkk diwaanu Sédhiou lu ëpp fukki poste de moo fa xam te xamuñu benn sage-femme aay li kuñ ko wax doo ko gëm te li tax amuñ sage-femme mooy lan ñàkk kaaraange duñ leen sawarloo ñoom sage-femme yi pour ñu dem fa seen salaire ya boo ko ëffee mu naaw jeex tàkk maanaam bariwul xamuñu ay jumtuwaay tus dara ba daray boola jeex moo tax sage-femme ñoo dem Sédhiou su ko defee soxna yi di seen doom ya di yooyu jafe-jafe Diouf Sarr na dem lijjanti ji ko ki lijjanti ñaar fukki milliards ak juróom CFD ba pare dimbalee ko nguurug Sénégal état bi lépp jëm nag ci wàllu financement niñ mën a def ba amal assainissement ci wàllu njàng mi ak njàngale mi lañ fa war a lijjanti fa bëri problème yi fa bëri force ñu raxas ko la dépêche yéen kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Dakar Times mooy soxnay Hussein Abré Fatim Abré xam nga fi mu toll lan mooy xeexam li mu bëgg mooy tubaab yi nga xam ne fa ñoo nootoon suñuy maam noot suñuy réew yi jiite ko te ba léegi donte nekkatuñ fi ñoom tubaab bi France ak ñoom ñoo jiite ah lu leen neex la ñuy wax seen président yi ñu def lu leen neexee am ci suñu réew yi ba pare tamit fa bëgg teg loolu dakk te nee na ngir loolu mën a xam faaw ndaw Afrique yi xeewu xam ne tubaab yi seen bopp rek lañ ne seen intérêt rek di ñu noot rek loolu nag fa war a dakk boroom këram gi ñu tëj kaso tamit nee na fañ ko war a génnee ma génn foofu dem ci l'observateur fekk fa Aliou Sow njiital MPD liggéey nee na diggante moom ak Macky Sall c'est fini intaha jeex na àdduna tamit ci mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko ma ngay laaj ci ndax ban complot moo ci am lim jàpp na kay moo ci am mooy gaañe fa ñoo jëfandikoo faiblesse su seen benn adversaire maanaam jekk ko gis na fii mën na fa jaar manque dëgg nag Sénégal mooy xay ndawam ñàkk xëy taxawaalu ci lii da lañ ne fa ngay jàng ba yéy say këy doo xam liggéey fa ngay ponkal xam doole doo xam liggéey ndaw ñaam ñaar fukki at ak juróom jàpp fanweeri at koo ci dem ñaareel ndeyam ak baayam a ko yor bu ñu xamee jabar sax ñaareel seen ndey ak seen baay ñoo leen di dundal ak seen jabar ya foog nga ne loolu jàmm la xale lu góor dem ba toll ni sa baay war a yor sa baay sa baay di la yor lépp ndax ñàkk liggéey réew gàttal fa ñoo wax ne Babacar Ngom daal fële na bëgg a jaxase ak askanu ndenga leer jàmm ja am ci diggante ñaari dëkk ya moom la bëgg a yàq ba nar a ba tax ab collectif mbootaay boo xam ne fay défendre intérêt jilaax janoog taskatu xibaar yi yekk nañu Babacar Ngom bu sédiment kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal dee nee nañ du dara ab homme d'affaires la ci boppam rek la ne ak yàq Babacar Ngom nag tey tontu na leen ci critique yéen a kaay nee na faa am lu ma naqari faa am betteel ndax man procès yi ma andi fii jilaax pour dimbale askan wi la ñu am liggéey suqaliku ñaaw wala di dal sama kaw du ma xam lu ma neex man nag du ma nekk fii mukk di dem ñoom ci yoon déedéet yëf yi daal man bàyyi naa ko ci loxo état bi lu mu bëgg rek wala dogal bu mu jël ma fekk ko ci xanaa ay wax fay jeex vox populi na ko jeex a gudde askanu jilaax mii pare guñ ci yow de ña ngi lay attaqué rek l'observateur moom xëy di ñu xamleeg Sidi Ababacar Si mook juróomi taalif woo mu bindoon jagleel ko weeru koor te ba mu koy bind boobu fukki at ak juróom benn la xamoon tàggat yaram joŋantu yu safta neex moo nar a am tey dendu Europe ak suba stade yéen kaay na bokk na ca Barça Atlético Madrid Real ak Séville Man City Chelsea ak yeneen Vox Populi moom di ñu xamal mbir mu tiis ab camion daal fa dër fa nappaaje fa jaar ci kaw ab taalibe bu am juróom-ñeenti at mu faatu ci xanam gu ñaaw te métti te doy war te naqaree xool allah yëf yaa nga amee ca daara laas yéene kaay moom di ñu xamal ne korite gi ay fan yu néew moo ci des waaye yëre yi nga xam ne moo ci xew tendance bi mooy borodé mbasin riche ak gensineer Walfadjri yéene kaay mel ni ku naan laas yéen fa mel ne xamuleen sénégalais ci lu nekk xiif ñàkk mi ngi ñàkk na ngéej luñ lekk yéen ngeen di wax ay jen zineer ak ci korité gi nit ñi taluñ loolu de xanaa xamule na ganaar ganaar sax fi mu toll nii moo raw doom bu góor ganaar gu nit ñi korité xamul Sénégal ganaar fa manqué korité gu nar a doy waar te métti moo fi nar a xam de